ku ne si yéen ak santam di dégg lu wér bi sëñ Muntaxa Basiru Mbàkke yàlla fi yàgg te wér ak njaboot ak lu Mbàkke mbusoo bi ak paaleen ñi teew ci jotaay bi di nuyu bu baax di bëreel nuyoo le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba ak délégation bi mu àndal yëpp du nuyu l'ensemble des responsables notamment les députés du département de Mbacké les membres du conseil économique social environnemental les membres du conseil des collectivités les maires du département de Mbacké di nuyu bu baax tous les responsables dans leur globalité ak autorité administrative religieuse et politique yi teew fi tey kaddu yi di bari ndax fii keppaaru Sëriñ Tuuba la fii keppaaru Sëriñ Fallu Mbàkke la mbay pee wax na ko ci waxtu wii sëñ Abo day ñëw fii seentu weer wi loolu nag bu tombee tey suñu candidat ñëw fi mobilisation bu mësul am Mbàkke kon suñu xel day dal suñu yaakaar sax na monsieur Amadou Ba ñu lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yàlla may ndam ci élection yi ñu jëm ndax 2019 à pareil moment le président Macky Sall était présent pour lancer la campagne victorieuse de la coalition Benno Bokk Yaakaar yàlla may ñu ci ndam au premier tour fii lañ ko inné fii lañ ko ubbeewoon du bari la mobilisation que vous venez de que vous, que vous voyez à suffisance la volonté et l'engagement de tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar département de Mbacké unis comme comme un seul homme pour vous accompagner vous appuyer jusqu'à la victoire finale. C'est l'occasion, occasion tamit pour man ginnaaw président Macky Sall mission jeex na Sénégal day jaadu bu ma taxawee fii samay kanamu mbokk samay kanamu sëriñ samay kanamu ami jàmm ñu rendre hommage au président Macky au président Macky Sall pour toutes les réalisations qu'il a faites au niveau du Sénégal réalisation yi particulièrement au niveau du département de Mbacké boo ci tuddee ñaar ba ñett doy na Touba pour un investissement de plus milliards hôpital Cheikhoul Khadim université Cheikh Ahmadou Bamba def na ci loxo bu baax a baax ci ndigal Sëñ Mountakha di ko sant particulièrement pour lépp lu def fi jëm Mbàkke ndax dañoo fal maire ma toog ak moom ne ko président nga xar soppi xar kanamu département Mbàkke nga soppi xar kanamu Mbàkke fan yii ministre Amadou Ba ñëwoon fi inauguré stade ndox mu neex fii ci pour un coût de plus de milliards loolu nag day firndeel ne Amadou Ba président Macky Sall moo ñu ko joxoon ñu suñu ngor suñu ak suñu dignité may ñu ak président Macky Sall li ñu ji mu joxe ñu candidat ñuy def leneen lu loolu te dañuy ñaan yàlla yàlla may ko tayit le candidat Amadou Ba benn yitte lañ am benn yitte lañu am mooy. bis bi leen fi yàlla tegee xam naa am nga yéen département Mbacké on est le département le plus peuplé du Sénégal on est le département le plus important en termes géostratégiques parce que le département qui englobe à son sein la religieuse kon dañoo bëgg li président Macky Sall def fii bu dee benn la nga ful ko ay junni junni junni pour que les populations de Mbacké soient plus en mesure de vous accompagner dans votre politique je vous remercie merci beaucoup jërëjëf